ci lëkkaloo gi nga xamante ni am na ko ak waa fondation 221 kii di Abdoulaye Dieye nekk njiital mouvement Siggi jot na daa dina maye juróom-ñett fukki bourse d'études ngir élèves yi ak étudiants yi yeewoo fii ci diwaan bu Thiès. éducation dafa nekk lu am solo ci biir dëkk jàppale ndaw ñi si seen jàng jàppale leen si seen formation donc loolu ku ko def yaa ngi defar dëkk ndax ndaw mooy avenir u ëllëg étudiant ku ko jàppale jàppale nga société parce que tey ñoo nekk ñi nga xamante ni. ñoom ñoo prêt à l'emploi chaque année dama leen doon subventionné tey nag jox naa leen benn enveloppe de 5 millions pour accompagner les étudiants thiessois yi nekk fii ci Sénégal yëpp. fondation bi dara taxu ko jug lu dul jàppale askanu Sénégal donc ak fépp fu nit mën a nekk tey nag boo gisee ñu ñëw fii donc c'est à demande de monsieur Abdoulaye Dieye parce que comme moom askanu Thiès dafa intéressé bi ñu tàndee suñu loxo ñun dafa nekk un pour ñu ñëw ànd ak moom liggéey lu ni mel ña nga xamante ni ñoom lañ ko jagleel rafetlu ko lool. remercier monsieur Abdoulaye Dieye ak la fondation 221 pour euh, ni ñu octroyé. ñu ngi am mbégte bu yaatu. ci acte bi nga xam ni DG Abdoulaye Dieye def na ko waaye du lu njëkk parce que yàgg na ko def pour étudiants yi. moom directeur général bu aéroport international Blaise Diagne daa di prox ndollu ci bés boobu daa di woo ndongo yi nga xamante ni ñoo nekk ci daara ju kawe yi ñu bàyyi bépp pëccoxoo bu leen indil ay jafe-jafe ci seenum njàng université euh, jàpp naa ni euh, bërëb boo xamante ni bërëb wutu xam-xam la du bërëb boo xamante dañ fay def champ de bataille que loolu yéen a ko war a xeex taxaw ni suñu université bii lépp lu ñu fiy def dañ fay def loo xamante ni dañuy jariñ def loo xam ne day yokk suñu xam-xam mais également du nekk loo xamante ni day indi tension si loolu nag li ngeen ñu wax pour ñu ubbiwaat université ñun si lu ñu mën dinañ si jàpp di leen transmettre le message. ca tàllu ndaje moom lay Abdoulaye Dieye di sàkku ci bépp ndaw bu yeewoo ci senegal ñu gën a jàng góorgóorlu uti xam-xam ba ni ar ndax loolu rek moo mën a tax sunu Sénégal gi ñu dëkk jëm si kanam.